mën a jàkkaarloo ak mooma yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na Ousmane mi nga xam ne moom la ñu fas yéene yóbbu nag ca kanamu yoon du n'importe qui moom jiitul Pastef ndax wane na boppam ci lu jëm ci wàllum politique moo tax Assane Samb nee na mbir mi du yomb te jëm mi Ousmane Sonko njiitul Pastef amul benn yaakaar ci justice su réew mi Ousmane Sonko daal lenn la xam te lenn la yaakaar mooy jàmmarloo ak Macky Sall ndax dafa jàpp ne loolee rek moo ko a fàcc li am ba des niki démb bi ñoo na tàngoon na jër jër maanaam démonstration de Bignona ndaw ñu ñoo génn génne nga xam ne ñoo nekkoon ci école yi ñoom ñëpp ñu daal di sambedd mi démb daal ñu fippoo ca Bignona kenn gi de la Tribune ndax ndaw ñi nga xam na ñoo dëkk Bignona ñooñee dañoo déterminé wo jigéen ñi sax dañoo génn ni ki démb jigéen ñi ñoo dem toogaanu ca préfecture ba maanaam amal fa ab sitina yéen kaay gi di réew mi quotidien ak Sud Quotidien nee na Moustapha Niass mi nga xam ne moo jiite assemblée nationale suba ci alxames ji woo ñi nga xam ne ñoo nekk ci bureau assemblée nationale ngir na ñu càmbara dindi immunité parlementaire Ousmane Sonko yéen a kaay gi ne na gars yi ko bëgg a fast track moom la ñu ko bëgg a def simmi malaanu kiraayu Ousmane Sonko jébbal ko enquêteurs yi yéen a kaay gi di li quotidien nee na soulèvement bi nga xamante ni jegeñaali Ousmane Sonko yi ñoo koy def bu weesoo manifestation yi am na nag ay jàngat ay jàngat yoo xam ne war nañu ko seede fa lu jëm ci wàllum politique Mamadou Sy Albert di jàngat wàllum politique maanaam analyse politique la nee na nag lii c'est la révolte de la jeunesse jeunesse bi si boppam ñoo jóg fippo Babacar Dione di ab journaliste nee na mbir mi ci boppam mbir mu yàgga yàgg yàgg la ndaw ñi ci boppam dañoo yàgg xaar ndax dañoo yàgg am lu leen naqari occasion la ñu doon xaar xaar leen ma ci yéen a kaay gii di réew mi quotidien ñu fekk fa waa yaanaa maar ñoom nag ñoo ngi dànkaafu état bu Sénégal démb bu seeti woon nañ Ousmane Sonko nee nañu Serigne Bassirou Gueye Serigne Bassirou Gueye procureur maanaam caxte-caxte ak yàq gi nga xam ne moom la fi nekk bëgg yàq état de droit loolee ci boppam wuruñu ko a nangu benn yoona Mamadou xam ne teg nañu ko loxo jàpp ne da doon tàll ay oto moom nag bi ko enquêteurs yi waxee nee na moom la te amul lenn loo xam ne ma ngi ko ci réccu ndax nee na dañoo bëgg a toroxal ki nga xam ne mooy ab leader am ñi nga xam ne ñooy waa Pastef parti Pastef ñoom nag ñoo ngi ñaalu seen militants yi nga xam ne teg nañu leen loxo ak toroxal gi nga xam ne ñoo ngi leen koy toroxal yéen a kaay gii de Les Échos nee na mi nga xam ne moo tuumaal Ousmane Sonko ci lu jëm ci wàllum viol maître Amadou Ali mooy ab avocat yéen a kaay gii di exclusif nee na nag nañu waxante dëgg nag nañu waxante dëgg waaye nag wax ji nga xam ne moom laa fi dégg ñu koy tuumaal Ousmane Sonko ci lu jëm ci wàllum siif ay waxu kasaw kasaw la est-ce que ce pays est sérieux gi moo xëy di ko laaj nee na ce que ce pays ndax waxi kasaw kasaw waxi joo xam ne amul bopp amul kenn la ñu tuumaal Ousmane Sonko yéen kaay gi sax yokk sa ñi nga xam ne ñooy tas ko du xabaar yi ñooñee ñoo war a xoolaat seen bopp ndax li nga xam ne moom la presse bi di titre ak article yi nga xamante ni gis nañu ko dañu ko commandité maanaam dañu ko sant ñi nga xam ne ñoo xëy daal di koy xibaar yéen na ñi nga xam ne ñoom daan nañu dànkaafu yenn ci ay journaliste ngir nag mbir mi ñu teg ko ci yoon maanaam te dee bàyyi parparloog yéen a kaay gi réew mi quotidien nee na front national de résistance ñoom Mamadou Diop Decroix ñoom nag nee ñu complot bii nga xamante ni moom la ñu bëgg a def Ousmane Sonko waruñu koo bàyyi mu jàll moo tax woo nañ mbooleem ñi nga xam ne bi ñu jóg taxaw woo nañ mbooleem ñi nga ne ay patriote lañ ñu jóg taxaw woo nañ mbooleem ñi nga xam ne ay démocrate lañ ñu jóg taxaw jàmmarloo ak Macky Sall yéen a kaay gi bi jamono ji retrouvaille am na ci ginnaaw gi di enquête xëy na samp ab na nag nañu waxante dëgg salon xamante ni moo fi nekk maanaam ay bërëb la yoo xam ne ngir faju la wala ngir bànneexu samp laaj ci yéen a kaay gi di Vox Populi nee na Ousmane Sonko njiitul Pastef ma ngi ci résidence surveillée ndax ñi nga xam ne ñooy takk der yi maanaam dañoo sam kër Ousmane Sonko kenn munta dugg kenn mun génn yéen a kaay gi du l'Observateur ki nga xam ne moomam salon de massage bi jëkkëram waaw jëkkëram ci boppam bi ko enquêteurs yi laajee nee na nag ba fa Ousmane Sonko ñëwee daal maa nga foon waaye dégguma benn biir wi dégguma tamit kenn ko yuuxu dégguma fa lenn keneen ki nga xamante ni moo doon wéetale Adja Sarr ci biir salon bi moom bi ko enquêteurs yi laajee la mu leen wax mooy déggul ko yuuxu déggul ko jàmbat déggul ko sëqat waaye li am ba de sall nee na ñoom ñaar ñoo doon maase son Sonko ba mu yàgg mu génn ki nga xam ne nag moomoom salon bi bis boobee nekku fa dafa demoon hôpital ndax dafa am doomam boo xam ne dafa juddu tëmatul yéen a kaay gi de la Quotidien nee na Ousmane Sonko bu ñu dinee malaanu kiiraayam ñi nga xam ne ñooy waa section de recherche gendarmerie bu Colobane duñu ko dégloo ndax nag dossier bi jébbal nañu ko juge d'instruction huitième bi kooke mooy déglu déglu Ousmane Sonko waaye nag su ko dégloo ba pare daal mooy xool ba xam daf koy mandat dépôt wala daf koy may liberté provisoire yéen a kaay gi nee na en daal ñun waa témoin ñun journaliste yi bëri na ñoo xamante ci askan wi laaj nañu leen lan ngeen xalaat ci mbiri Ousmane Sonko waaye nag ñoom nee nañu dañoo déterminé daal fas yéene jàmmarloo ak Macky Sall ndax Macky ci boppam moo jàpp ne lu ko neex def ci réew mi ñenn ñi a